taamu journal mu revue des titres Chérif dañu koy njëkkee ak l'observateur mi xëy seex waxtaan exclusif ak ki nga xamee ni euh, moo di maître Ousmane Ngom maître Ousmane Ngom sort euh, la matraque bëri na ci ay mbir yow xamante ni boobu ba tey ñoo ngi koy waxtaanee jëm ci mbiram moom indi na ci ay tontu ci l'observateur bu tey bi. waaw indi na ciy tontu kon ma daanaka l'observateur la beral boobu waxtaan moom maître Ousmane Ngom tontu na nag cong yi ñu koy song ci wàllu dossier judiciaire yi coow li moom du tere moom li muy def mi ngi koy def wante tamit sax xamul sax fan la buntab CREI yi nekk di ëttu attekaay bi nga xamante ni moom mooy yëngatu ci wàllu alal ju lewut wàllu nag terrorisme maître Ousmane Ngom wax na ci nee na bisab référendum ba lam doon addu ci wàllu terrorisme la xewoon ca Walfadjri jox na ko dëgg kon mel daal maître usman Ngom bàyyiwul dara interview exclusive bu ngeen mën a lire ci journal kaay bi du l'Observateur. laaj bi samp nag mooy fi mu tollu tembe ndax maître Ousmane Ngom dina def retour aux affaires ñu bëri ànduñ ci bokk na ci Moustapha Diakhaté tey jii sax moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di regard waaw regard it euh, ci noonu la del si même moom maître Ousmane Ngom ndax Moustapha Diakhaté moom àndul ci maître Ousmane Ngom daal di rek dellu si ci wetu président Macky Sall ndax dañoo jàpp ni moom dafa am lu ñu ko doon tuumal ci atum 2011 jàpp 2012 ba tax ay doomu aadama faatu woon ci yooyee manifestation ndax dellu seem ci gouvernement bi dafa am ñu ko ragal ab laaj samp na ci mbiram moom maître Ousmane Ngom direct info xëy di ñu ko xamal waaye ba tey ci xëtu yéenekaay bi euh, ñu ngi ñuy xamal euh, ci français ni Serigne Modou Kara n'est plus ambassadeur itinérant waaw dafa mel ni ndomba tànk googu ko ko takkaloon di président Macky Sall daf ko tekki loolu yéenekaay bi di direct info daal di xamle moom nga xamante nag mooy Serigne Modou Kara li mu jàpp ne moo tax ñu def loolu mooy ni mu woote woon ñu woote déet ci référendum bi ko waral. maître Ousmane Ngom bokk na ci ñi nekk ci xëtu yéenekaay bi di enquête loolee mu ngi jëm ci li ñu tuddee traque des biens mal acquis enquête beeg procédure bi tolloon na ci ñeenti at waaye enquête du ñu xamal fi mu tollu tembe traque boobu dafa nekk ci li mu tuddee au point mort. tagga témbe la def demul dikkut daanaka bu mooy Karim Wade kenn ci ñin tuumaloon toppun ko mu tax waa CREI sax yéen kaay bi def benn jàngat ne la taxoon ñu daal leen di fal defun ko ñii nag seen i photo ñoom Awa Ndiaye Ousmane ab Abdoulaye Baldé ak tamit Aïda jong ñoom ñëpp dañ leen doon topp ci alul ji la wut wante mbir yi demul dikkut gréew gi ci njàng meeg njàngale meek ni mu sooxee ci réew mi euh, Mary Teuw Niane ginnaaw euh, bi ñu ko dégloo tey ci RFM ci lu fajar gi ba dégloo ko ñun itam ci suñu journalu 7 heures bi yéenekaay bi di populaire dafa xëy moom euh, jëm ci lii mu tuddee l'État se braque contre le SAES. waa nguur gi dafa mel ni kon desewut dara du rek songu ñu waa SAES e ndax dañoo jàpp ni ñoom li ñu def ci investissement ci koppar ci enseignement supérieur takku na takku goog mënuñoo comprendre jàngalekat yi nekk ci enseignement supérieur di amal ay yëngu-yëngat di laaj également wàllu xaalis ba tax ministre bi mele leen lool ñoom waa SAES. E réseau jàngalekat yi ci parti bi di APR li yéenekaay bi di Grand Place xëyee tey mu ngi ñu xamal nii li ñu nekkee la fronde la fronde la ko tuddee ci xëtam tey. waaw dafa am ñu fépp ci biir réseau des enseignants bu nekk ci APR diggante nag Ahmed Suzanne Camara ak Youssou Touré dara doxastu fa ñoom danoo jàpp ni Youssou Touré faaw mu dem ndax mënatul nekk seen coordinateur Youssou Touré moom it lànk na fi mu mooy na du dem. ay djihadiste ay nit yoo xam ne ñu ngi leen di tuumaal coowal terroriste laas ak évidence ñoom la ñu xëyee tey ñu teg leen loxo traque de terroriste deux présumés djihadistes arrêtés à Mbour. ñaar ñooñu danoo njort ne ay djihadiste leen ca Mbour la leen alkaati yi tegee loxo ngir rek. lan naroon a nas wala ñu yéen a ko ñu gàntal seen pexe ba tax ñaari yéen a kaay yooyu daal di ciy dellusi bu baax. évidence sax ci loolu la xëy comme ni ngeen koy gisee noonu ci euh, écran bi euh, jëm ci ñooñee nga xamee ni euh, teg nañu leen loxo évidence nag di ñu xamal ni ñaari mbuur waa yooyu ñu jàpp dañ leen jàpp vers une destination inconnue yéen kaay bii di réew mi dafa xëy tey ci coow li ci agence yu ministère de l'économie et des finances ay virements de salaire bloqués par des les travailleurs désespérés. waaw loolu la parce que agence yi jamono jëli ñu wees dafa am benn arrêté ministériel bu génnoon ministre bi ñu dénk wàllu koom gi moo ko signé woon ngir rek ñu daal di wàññi salaire yu ñu nekk ci agence yi fii ci état bi. ba tax ñoom liggéeykat yi daal di xaw a jaaxle bu baax ba tax it lu jëm si virement seen salaire yooyu ñu bloqué ko xëy na tiitaange gi moo ko waral. fan yëpp ñu ngi gis ci yenn kaay yi ni ñu bëree ngi njort remaniement ministériel ci gouvernement euh, bu euh, euh, président Macky Sall Zoom xëy na tey di laajte ndax loolu remaniement la wala réaménagement les menaces sur la stabilité du PSE. waaw PSC boobu nag euh, xëy na yéenekaay bi dafa rek euh, sampu laaj ci lu ni mel ndax dafa jàpp ni coppite tey bu bëree est-ce que PSC bi fan bëgg mu dem dana fa eggam déet ba tax rek mu daal di ciy taxaw seetlu. témoin ñu jeexal ak moom xëy na tey ak waajtaayu défilé 4 avril. waajtaayu défilé 4 avril ki jiite arme bi di général Modou soow moom nag moom moo daal di rek euh, joxe xalaatam ci nin bëggee fête gi tëddee ko. ndax armée bi xam ngeen ni bi mooy fukk juróom fukk ak juróom benneelu yoon Sénégal di fête indépendance am ñu bëgg nag xew wi daal rëy ba tax ki jiitab armée bi daal di ciy dellusi bu baax muy défilé bu nar a am solo. jërëjëf Chérif loolu yéen kaay yi làkk seen xët ca kanam ñu xóotal ko ci revue de presse beeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu bàyyi la nga daw ndekki euh, puisque 7h32 mooy doog jot 8.